أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokki sénégalais yi ñu ngi di leen hak xaq di hak tay xaq ñaan suñu borom bokku ñu jéggal di di tubal tuubal ci lepp lo xamé ne ka deg deg ngeen ko fi xeyna mënu na mu ñak ñi ngi massaw suñu sœur bobu di mam jaara vraiment mu nekk patriote bu engagé ku am fulla am fayda combat bi jaral ko lu nekk defe naa Cheikh Anne vidéo bi mu ci def Cheikh Anne ANN TV vidéo bi mu ci def ñëpp gis nañ ko ku ci mën a jàpp-jàpp ci bu baax a baax ñu bëggoon a indi ay leeral ci mbiru euh, Macky sàll Ousmane Sonko ak sëñ Abdou Samad ak waxi Assane Mesere ndax euh, dafa am ay points yoo xam xam naa léeg lekk ñu dana ni waaw focus de politique addition la focus 2024 2024 lu ñu bëgg luy carte premier tour donc nous avons besoin de maximum de personnes qui voteront pour le président Ousmane Sonko donc su propos yu ni buron ben benn ni sax rek jar na kii waxumaale nag koo xam mbolo moko top ta ñu bari am ciofel ci mom muy Serigne Abdou Samad ñi bëggoon def vidéo bi di mangi ziar wa asamadia TV ndax xam nga asan dafa wax ni wa pacifi yi ku nu wëndeel premièrement asan loolu mu wax mom moko ñame wax waye bu son yi bu la du waxé nonu son yi bu day gis ni cii kat kilifa la kenn du wax ci moom noonu kili dafa am ay xeeti kilifa yoo xam boo dalee seen kaw da ngay ñàkk benn benn poids bi ci wàllu électorat léegi su fekkee ne que mën ngaa indi leeral ci loo xamee ne que nag bu noppee ñoom danañ xam dana def ci am solo li tax ñiy def vidéo yi mooy ñin ko séqal ñun ñuy suñuy adversaire nga xamee ne que ñu ñun ñun adversaire di xeex ñun politiquement ci xel ak ci xalaat ak ci ay gisin ak ak ci ay programme waaye da gis ni dañuy xeex xeebuñu dara li tax xeebuñu dara man nag action bi dama ko topp léegi Assane dafa ni waa Pastef la kun fi wëndeeloo premièrement Assane ci boppam dafa mën a kaf ba xam am kafam yi amul limite waaye kuy wax ci sëriñ waroo ci waxee nu mel noonu rawatina nag ki ngay wax ni mu toll ndax defe naa waa Asamad yi xam naa danañ kii yàgg nañuy topp. ankay ba bërki démb rek vidéo bi sëñ Abdou Samad def di waxtaan ci xaside yi ci yi mujj yi li mu wax ci Ikfini ak ci li mu wax ci kii dama ko seetaan mu jeex tàkk seen chaîne dama koy topp te passif laa bokk seen chaîne dama koy topp te passif laa bokk waaye dama bëgg indi ay leeral ndax sëriñ ni nga ko war a bëggee ak xëy na sa waajur ni nga koy bëggee ak sa doom ni nga koy bëggee ba xëy na yenn sagoy doo ko am ci moom doo ci bëgg dégg lu dul li la neex donte nag taalibe bu nu tarbiya ba noppi li nga koy def moom mu jëm ci moom moom dana la ko mën a muñal waaye taalibe bi mun la muñal nag li ngay def mu jëm ci sëriñam te euh, gis naa ñu bari di daggaat vidéo xëy na sax ñoom li tax ñi di ko dagg ci ko xam idéologie wu passif ak euh, patriote yi ni ñuy xalaatee ko maanaam dañu bëgg wan ñii ñi leen fii ñoo ko moom muy réseau sociaux yi ngay jàpp ma ni suñu Abdou Samad am na ñoo moom mbir gars yi ki ñu amal problème Macky Sall la tudd li tax nag ñu am ak ñoom problème du xam sëriñ bi ni muy gisee Macky ak patriote bi ni muy gisee Macky du bokk sëriñ bi xëy na moom waraay fii kulli xalqin xaqa man xalaqa gi sëriñ Touba wax moom la sëriñ Abdou Samad xëy na di gisee ku mën a ñëw ci moom euh, maa ngi ziare wala sëñ ki nu ki nu mu tudd Oustaz Alioune Sall fan yi bi mu fi ñëwee seen chanir yi wax dëgg fa yàlla ñi doon toog di def euh, way yi ci kanam suñ ki léegi patriote bi ni mu gisee eh, serigne bi moom day gis ni ku fi ñëw rek ni serigne Tuubaa mo wax ni mbindeef mu nekk sàmmonteel ak xàqi yàlla mi ko bind ci moom waaw waaye boo xoolee comme ku mel na patriote bi moom du gisee noonu Macky Sall moom moom gisul la personne de Macky Sall mais le président Macky Sall fi mu toll dafa am ñett ñoo xam bokk ñu ni ñuy gisee patriote bi moom président Macky Sall lay wax mooy ki nga xam dañ koo dénk muy mbindaan bi bi nga xamee ne que moo ni dénk leen ma bon dénk ko alalu réew mi boo xoolee vie privée wu kooku du ko intéressé benn soxna la am du ko intéressé ñaari soxna la am du ko moom noonu lay gisee président Macky Sall am keneen koo xam muy euh, euh, sëriñ bi sëriñ bi bi ñu tarbiya bi nga xam moom dafa yore ay njaboot moom ku ñëw dafay gis ni kii jaamu suñu boroom la waraay kul fi kulli xalqin xaman xaqa man xalaqa foofu lay dugal Macky Sall foofu lay dugal Sonko foofu lay dugal ku mën a doon moom noonu la koy gisee danaa ñëw tuuti dafa am lu bëgg leer lu am solo waaye muy ben kon legi legi mu des nag waa APR wa APR ñoom dañuy gis ñun le président du parti mooy tax legi nag ñi statut point yeeg yooyu ñoom loolu moo leen intéressé moo tax am ki bokk APR dafa war a xam ni moom yorul rek président APR président de la république président APR mom lay nak ñom voté gagné sañ supporter la nekk patriote bi nga xamé ne que dafa opposé nga xam mu nekk ak mu ko donte voté muy 48 ñoo ñu ni woon dit tamit dafa am droit opposé kon bo xolé ñom ñatt duñu ni de le citoyen bi nga xamee ne opposant la moom dafay gis président bi ma dénk sama yëf ñii la ma ko war defal fii la ma ko war defal lu tax defalu ma ko nii lu tax defalu ma ko nii bokkut ak nag sëriñ bi ni mu koy gisee moo tax nit ñu bëri foofu la ñuy juumee dañuy defe ne ñoom ni ñuy gisee nit ki noonu la ko di gisee kee déedéet léegi nag man damay wax li ma ci xam ndax nit da ngay wax li nga xam man bi photo bi duggee muy photo sëñ Abdou Samad bi ak kii bi gis naa ko waaye photo kese taxut doyut ndax bu doon loola am na fi koo xamee ne que ñu bëri dañuy wax ni day saaga kilifa yi te leen wax ñàkkee teggin waaye da gis bu nu bëggee gaañ Pastef dañuy jël photo bi mu ànd ak Ousmane Sonko donte Ousmane Sonko taxaw na wax li mu wax waaye dañuy jël photo boobu pour xeexee ko ko est-ce que léegi photo boobu dafay valable pour wane ni ba tey ni Sonko dafa d'accord ci loolu muy def déedéet da gis tamit fu Sonko am na fi ay ñu fi àndaloon. ñoo xamee ne bokku ñu ci tariixa yi da ngay gis tam ñi diko xexé est ce que lool daf koy justifier dedet donc nit li nga bëggul ko ko la koy juger waro ko juger kenen man bi boo dem gis na kenn ku duggal photo bi da di wax ni ci système bi bind ko ci suuf man ko li lu mu jotté ci système bi li tax ma bind ko yeen ñi nga xamé ne que ay talibé seigne Abdou samane ngeen pour wan pour ak yeen ñi nga xam ne nekku leen ko yeen talibé seigne Abdou samane yi pour ngeen xam man yag na koy top waye pour patriote tamit xam ni it lolé it tëddeewut noonu bi nu defaree Masaalikul djé man bima gissé vidéo bu lolou ba paré sax dama si saa si dama wuti ben vidéo dafa am video vidéo bo xam seigne Abdou Samad dako biñu paré défaré ba pare mu wax ci wax yi may bëgg wax lolou nak moy tektalé ni seigne Abdou Samad mënut wëlbeuti wëlbatikuwaat di wat ci système bi dafa ni Sëriñ touba mom nimi défé ak njabotam bu fekkee ay ñun fa tek du ñëw ñi dem leen dindi ko waaye day yëkkati loo xam ne bu ñëwee kenn dootul gis lee mun teg leen ko foofu suñu borom defal Serigne Touba taalibeem yi xam ñëw ba ca wetu obélisque boobu yee nga xamee ne ñun ñëpp xam nañ mbiri seytaane la mbiri franc-maçon la mu ñi jël masalikul jinaan bi teg ca wet ga mu gën koo rafet gën koo jëmm loolee ko fa romb mu fàttalee ndax nag léegi di nit kooku dana dem ba am age bi mu am. xam loolu ba pare xam ni lii yëf seytaane la ba pare bëgg wëlbati ko defaat nii déedéet munta nekk patriote bu ci am sikki sàkk may naa la nga dem di dugg ci ay kiiwu sëriñ Abdou Samad ak euh, yi muy def xëy na nag man xawma sa personne dëgg-dëgg waaye dama koy topp moom dama koy topp naa ko bi guddi guddi euh, ajjuma yi mu def bi ñu defoon poroxaan ba muy wax sëñ Ibra Gueye naan ko boo defee salaatu ala bi ba mu naan euh, sali salaata taj ma woon xayraati maa salaami dalaa ila xayraati Euh, yépp maa ngi ko doon topp moog sëñ am zato guddi ajuma bi ñu defee woon foofu ba mu naan soxna li ko gën a yéem ci barab yi mooy soxna jaara nekk fi woon moom képp di fi soxna boo xam moo fi doon liggéeyal Maam Mor Anta Sali mi ngi fi woon ak ñeneen waaye lu tax ku fi ñëw rek sa xel si moom lay dem di ci expliquer yu bari kon loolu yàgg nañ koy topp kon ku leen loon ni waa Pastef ñoom noonu gisin boobu la ñu amee ci kii maa ngi leen di wax yéen taalibe sëñ Abdou Samad leen ne tëddeewut noonu ci ñëpp day fekk ni nag njaboot saa soo amee njaboot fu mu tàmbalee mat ñeen fukk nga tàmbali ciy gis lu la naqari fi mu toll nii nii lislaam bi mu yaatoo gis nañ ay jullit ñoo xam seenu melokaan boo ko gisee dëgg fa yàlla ci ni yonente bi ne ak jullit dëgg mooy koo xam jullit ñëpp mucc nañ ci ay loxo mucc nañ ci ay làmminam wóolu nañ ko ci seen ci seen alal ci seen deret xam nga ni ñii fi nekk nii di sàcc suñuy milliards suñ mun taxaa joxe deux cent millions ñu sàcc ñooñu pourtant rek kenn du ay jullit dëgg waaye du tax ñu taxaw fi leen nag du ngeen ni jullit kon njaboot moo mel noonu fu matee ñeen fukk nga tàmbali ci gis loola naqari waxuma laak nag ñi ku ne ndax yàgg naa fi wax ni am na loo xamee ne que Macky Sall la waaye ku wax dëgg fa yàlla yar bi ñu war a yar nit ki loolu du responsabilité wu Macky Sall ñi ngi ko gàll ci wayjur bi wala nit ki tamit bu demee ma nekk mag yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhil wasila léegi nag nga war a wuti sëriñ bi la war a yar waaye sëriñ bi am na devoir yar la waaye tamit am nga charte yoo mar a matale ngir yar boobu mën a kii kon loolu dem du yoonu Macky Sall nekku ci yar ak yar ak teggin ak kii kon loolu sëñ Abdou Samad mënu ko wax ba pare wëlbatiku bëgg a duggaat ci système xanaa loolu nag du ko sëñ Tuubaa jaraloo ko mu di woo jaayante waaw rawatina <laughs> defe naa ni muy loolu beneen bi soppi mooy xam naa ni sëñ Abdou Samad moom yoy asan kad yoy asan mesere yegati jefe mu jappew mani mom yoy wax deug fa yalla dana ko jàppee ki ndax ganaw ba taalibe bu ndaw rek seigne touba dafa ni bëgg tag wala ragal nga ñi mooy waral bépp ñaawteef ci niki kon lool mo lay tere yegg niki ki bu kon lool mom seigne Abdou Samane kon war na ko mom mi yéré yere euh, beneen bi li ci am gëna am solo nak ta am gën ci am solo ci parti bi may wax muy seigne Abdou Samane mom daara moko ko ku ko xam xam ko ak daaram ba keroog rek bi fi oustaz Alioune Sall demee maa ngi koy seetaan ci As-Samadiyya TV pour ñi patriote yi ci bëgg abonné bu leen ne xam nañ cee abonné oustaz Alioune Sall bi fa demee bi ñuy wax ci ni ko suñ son bi doon jàngalee ni nga xamee ne que boo bi nga yi nga wees yëpp da nga koy jàngal pare door di jàng sa bindu tey nga xamee ne que booy fi ngay wàcce kaamil bi amul wàcce kaamil pare di jéem a mokkal fi ngay wàccee ngay mokkalee loolu suñ Abdou Khadir nettali woon suñ bas euh, suñ Moustapha suñ Moustapha Abdou Khadir nettali woon nañ ko ci sëñ Souhaïbou léegi bu fekkee sëñ euh, abdu Samad noonu la mel ci daara fii ci Sénégal Ousmane Sonko mel ni mu mel ci daara en tant que opposant waaye di mu ci di ci def li mu ci def moo tax ñooñ ñaar ñooñ bis buñ dajee jamono lu bëri te ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ziyaara waa ñu ngi ñaanalaale sëñ Mamor Mbàkke ibnu sëñ Fallu ci taxawaay gi mu amoon ak mboolem ñi taxawu daara rek kon kooku dana leer ni mook Ousmane Sonko dama gëm ni sax relation bi ñuy amee ji gëw ma sax dana Ousmane après dana ko am ak keneen ndax bis bu ko présenté ni ko kii di nii la mel ci daara mu xam ko Ousmane Sonko ñi présenté ko ni li sëñ Abdou Samad taxawal ci daara ak ñi ñi ñi ñi muy taxawee waa daara damay defe ni ñoom ñaar kon seen relation après relation boo xamee ne que bu di gëw sax dana ko amaat ak keneen foofu xëy na mën na nekk nag. waaye dama jàpp ni kon ñoom ñaar ñoo war a gën a am relation léegi nag bu dee Assane Mesere moom dafa am lu muy analyser noo xam boo ko comprendre bërki démb rek sama sama doomu nijaay Assane Assane euh, mi may wax lu mel noonu daal ma ne ko maa ngi ma ne ko man kii bu njëkk bu daan wax dama naa wax waaye kii nañ ko tëb léeg-léeg nag mu mu def yoo xamee ne que day wax day juutal wax ji daal ba wax li mu bëgg wax waaw xam nga bi mu ne waaye saala bii nga wax na dëgg waaw caaxaan yi bi nga fi ñëwee ba léegi kenn léegi ay dokaan door pa gisatoo ko nangam nangam waaye dañu war a gis caaxaan yooyu nangam loolu lu mu bëgg xamal noonu mu ko waxee fi mu toll nii yow mi xam da ngay xam ne li mu bëgg wax mooy régime bii fi nekk liggéey nu ay caaxaan a fi nekkoon 1960 ba léegi ay Dakar na door pa ay fecc yi ay taasu ay way Sonko nag depuis que bi mu ñëwee ba léegi booy dañoo focus focus lan ci li leen di jëriñ ci seen réew loolu kon euh, da ngay gis ni Assane daal ni muy analyser moom bu ñu la indilee daggitu vidéo yow mi nga xam ne taalibe Sëñ Abdou Samad mën nga mën nga see juum te lii ma wax boo ko bëggee jur boobu li mu analyser moo li mu li mu analyse ci mbàkk yu fay koo déglu di nga comprendre baax. léegi nag doole bi ñu am ci réseaux sociaux yi <clears throat> suñu boroom leen lu ci nekk bu koy feeñal euh, lu mu daal am na lu mu koy defee waaw. da nga gis ni réseaux sociaux nak ñepp ñëpp la traumatisé noonu ko Assane waxee nak deug la waaye ñun bo gisé ñi reprendre ñi ëpp ci ñu patriote di reprendre wax ji jëmele wuñ ko wax dëgg fa ci ak seigne Abdou Samad amu ak moom kii nak wax dëgg fa yàlla patriote yi ben mbir lañu am moy lu nak lu nakari Macky Sall neex nañu lu ko waral <clears throat> mbir da ngay tambalé fam tambalé Macky Sall da ñun da bëgg réew mi da di wax ni le combat se fera dans la rue moko wax de moo tax dans la njëkkee njëkkeewul ci Sonko xalifa waxoon nag kay defe naa vidéo bi dugal naa sama page Moussa Kalaam ku waxoon gis ko bi mu waxee loolu daan ni jeunesse bi seen avenir ñi ngi yàq seen yàq seen avenir mag ñi nanga ba yaa ngi sax boo xoolee fan yële eh, bi Antoine Diome génne bi eh, kii génnee pare ma indiwaat ma taqalewaat ñaari vidéo yi mag Macky Sall di wax ne xale yi gën ñoo gën a xam li ñuy def li erreur homme politique sénégal moy dañu japp ni peuple bi dafa ignorant dafa xamul li xew lolé nak <clears throat> dafa am solo lolé seigne muntaha taxaw waxoon ni bokk si coow li xam li xew da ko gën lol foofu la mbir ma tambalé ay ndaw jóg and ak ñom ñi ngi lay delloo ziar suñu Modou Fall seigne Ibrahima jang ñi ngi leen di ziar bu baax and ak mo Macky Sall di xex bu fukki bakkan ak ben wad li ñu doon xeex troisième mandat troisième candidature ak gestion bu bon ndax bu doon troisième candidature te Macky te Abdoulaye wad defone fi lo xamé ne que la mu digé won milliard ken dor ko fi sacc mom mom du meuna sacc 8 milliards taiwan yi ba par tanan Abdoulaye wad dama ko may Abdoulaye wad diko weddi bu fekkon du won lolu fekkon ne que xëy na Abdoulaye Wade na yenn bilan yi ben yenn ben engouement bi daw ko am dal xex bobu kon mu ñu xex le mu len digon nak moy suma ñewé je ne construirai pas des routes des ponts affaire faire ma dekk di def yoy ndax réew dañu ba ko wax ci Sall le 31 décembre à la 2 31 décembre 2011 le mu diggee ba jeunes yi jël sen bakanté ko ci ba mu contraire bi la def dalena wor a bi bobu li yi di xex yépp Sall Jean-Franck Kilard ñu France ñi fexé ba tek waxu leen ni colloque français amna ci page bo demé ci page bi ni wax page Macky Sall bi ni wax avec Macky Sall parce que man affaire dama ko geuss ndax nit bala ngay wax da ngay xam ni ngay wax bo demé ci da ngay bind avec Macky Sall non la non la page YouTube bi tudd amna ci bo xam mi ngi nan ñii ñi wax ni Macky Sall c'est le candidat candidat de la France nu deug di ki xaataraayu ouais l'histoire a donné raison maintenant les gens du palais ont dit que je suis le candidat de la France

moo tax affaire yi doo jël rek li Assane Mesere wax rek ñëw nervi religieux yi daggal leen ko ñëw indi leen ko yéen taalibe ak sëñ Abdou Samad yi fii la affaire bi tàmbalee dëgg la nag politique am na ñoo xam intéressé wu leen waaye fii la affaire bi tàmbalee kon ñooñee faatu woon Macky Sall na woor ndax troisième mandat bii bu ne li li tax parti am am problème dauphin ki ko war a remplacer parce que troisième mandat la doon waajal sii di Niass mboole mi mu lépp mi ngi fi. te la mu waxoon ba léegi dañul mooy da ngeen ni sonn jëlee ka fi mbaamu mbaa mbaamu sonn moom bàyyi boppam waaye dara te a mën fee jëlee Macky la léegi nag war na fukki bakkan ak kii yooyu ndax fukki bakkan yooyu du rek ci Abdoulaye Wade lay répercuté bi pas day répercuté si si Macky parce que su fekkoon ba toogee la mu waxoon la def boobaa bakkan yooyu kon day ci day concerné képp Abdoulaye Wade waaye comme que bi mu toogee deful li ba bakkan di rataat day am juróom fukki bakkan yi ak fukki bakkan yooyu muy 61 bakkan. loolee na moo indi waral ñi bañ Macky sàll bañuy woo xam ndax moom lu neex sénégalais yi naqare na ko taali waa kër sëñ Saliou yi diggante sëñ Moustapha Saliou ak Dankouté imam Alioune Badara Ndaw li mu ko def naqari kii oustaz Ibrahima boobu mu fi tëjoon ci affaire terrorisme ba jabaram bi ndeysaan ñaareel bi dem aw ba toog fa ñi téye ko fa ba mu am traumatisé ba bopp bi traumatisé wu lépp Macky Sall ko def xoolu nit ñi di tàng muy defar xol nit ñi di tàng nit ñi di dee gaal yi nit ñi xol yi di tàng nit ñi da yegg ci fi mu toll nii Macky Sall benn kilifa dane ko nit ñi du caagu rek dañ laa bëggatul waaye dañ laa far bañ parce que Macky sàll mu cultiver haine boobu bi mu jógee ci mois de mars première déclaration lu mu wax dégg naa leen waaye bi mu demaatee ñaa ñaajo li fi amoon dootu fi amaat daal di leen toog te booy ku xool après ni ñu doon taxawee di saafonte ak policiers yi da xam ni carrément que nit ñi lii la kon nit ñi ñoo bañ Macky sàll ba ku ko bëgg ñi bañ la ku ko bañ ñi bëgg la. noonu yi nag pas-pas boobu nag defe naa waru leen ne waru ñoo jaaxal ñun murid yi ndax ñun ñëpp dégg nañ sëñ Abdoulaye daan ni képp koo xam li Serigne Touba defuma këlew ma de damay wane maanaam nit ki boo xamee pas-pasam dafay tax après nga xam jëf yu mu jëf rek ci nga koy mën a comprendre. Macky Sall boo xam ne digganteem ak France lu muy def ci ay xeetu contrat ak i njuuñ jaaj yu mel noonu yow tax xam France ni muy doxee politique am dootu la bett ab murit soo xamee pas-pasam yi muy jëflanteeg yow dootu la bett waaye patriote yi soo xamee seen pas-pas li muy jëflanteeg yow dootu bett mooy dañoo bëgg Sénégal ba ku ko bëgg ñi bañ ñi bëgg la bëgg Sénégal ba ku ko bañ ñi bañ la bañ Macky Sall ba ku ko bëgg ñi bañ la bëgg bañ Macky Sall ba ku ko bañ ñi bëgg la loolu mooy seen pas-pas léegi di nga ci gis ñi téye nit koo xam neexu leen sax waaye comme que mi ngi konne da dal ci Macky rek ils vont dire tous les coups c'est bon loolee nag mooy seen pas ñi ci ëpp mooy seen pas-pas am na ci nag ñoo xam am nañu pas-pasu yooyu newuñu ci ñoom Macky Sall la ñuy séqal point final moo tax bépp nervi religieux buñ fi kii kiiwal dañuy fekk Macky Sall di la jox dara waaye bépp sëriñ boo xam Macky Sall jox la dara ndax man mii jamono yële ci ginnaaw am na fi maja maja mu bindoon ci sëñ Bass Abdou Khadre maraa di wax am benn analyse dama koy bañ a kii bi mu defee loolu ma ne ko léegi bi mu naan sëñ Bass Abdou Khadre na génn leeral ma ne ko sëñ Bass warta génn leeral accusé ku ko def yow yaa indi preuve jamono boobu pourtant am naay ay du doon bëgg sañ bas génne génne preuve te moo ne bu dee ci mbiru Adji Sarr dañuy laaj Adji Sarr preuve xam nga nit da ngay cohérent nit da ngay cohérent accusé bi ci boppam mooy indi preuve bu dee ci mbiru Adji Sarr Adji Sarr moo war a indi preuve du Ousmane Sonko waaye tamit bu dee ci mbirum Madiambal Diagne Madiambal Diagne moo war a indi preuve mais du sañ bas moo tax sëñ Momar Diagne foofu dafa daanu bi ma ko waxee ma ne ko sëñ Momar man dugg naa ci Google Map waaye Dékélé gogu fenn fuñ fay 5 fu fa cinquante euh, hectares yii Madiambal Diagne wax suuf soosu neewu fa fan la nek au lieu mun ma ah man de damaa jum dafa ne ma demal nga continuer ses recherches li la ma tontu ma ne ko bi nak vraiment xaw ma ni won nak tu n'es pas si attentif attentif kon dafa am lo xam kuko wax yow yaay indi preuve légui nak kon diggante patriote yi ak Macky sàll foofu lañ toll li waral nag ñi bañee makki sàll nii mooy daf leen a dig ñu taxaw xeexal ko jeunesse bi xeexal ko ba jox ko réew mi ak yaanaamaar vidéo yépp a ngi fi mu wër bëti ko wor leen waaw bu leen woroon rek doy na waaye ku sàcc 94 milliards maa ci teg sama cooc Mame Mbaye Niang 29 milliards ma 39 milliards maa teg sama conc 49 la sax ndax 29 plus 20 yi Macky Sall wax ne dolli waatoon nañ ci muy 49 maa ci teg sama conc Mariama Sagna amul enquête attaque Ousmane Sonko Mbour mu ne amul doo am enquête ay nervi yu Issa Sall jël mu ne doo am ay nervi Mansour Faye ci ñi song Ousmane Sonko ca Ndar mu ne doo am enquête waaw ay jeesi ak ay paaka ak ay attaque lacrymogène ku la ko dëkkee def mën naa ko nga koy bëggatee léegi nag ñoom nag pensée bi patriote yi di am foofu mooy lu tax kon sëriñ si yii waxuñu ci lii loolu nag sëriñ si ñoom ñooy xam la tax ñu topp ñi ñi lañ cay tontu waaye la ma waxoon kooku ni ko pour nga ni diw mii ci système bi la bokk da koy gis mu génn wax système bi ku ci bokk wax mooy loolu nga doon gis yenn sëriñ si rek na di génn ni ni waxee da ngay xam ne ñii ci système bi lañu bokk waaye koo xam waxul dëgg la nag. Euh, man li ma jàpp mooy li Assane Mesere wax pour man demeewul noonu jàpp ma ni sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ euh, Abdou Samad ragalee na ŋàññi ragal gu toll nag ko gis dara ci réseaux sociaux yi déedéet demeewul noonu de dafa am ñu tàmbalee di wax te patriote yi pour te dire du du ci lépp la ñuy daje de day am ci nii daje am ci dul daje affaire cumul baa ngi nii bokk ci woon gis-gis ñun ñëpp ñii dañ ñi waa ñii di déet man mii dama bokkoon ci ñu ni woon déet di ko argumenté ba mu saf sàpp waaye bi Cheikh Bara expliqué li ñuy wax lu mu tudd maire député maire di expliqué seen réussite député maire di expliqué seen réussite waaye tamit xam xamee bi ñuy mujj am foofu te député mooy xam problème bi nekk bu nekkee maire mooy xam problème yi dëgg-dëgg ak jëflante yi bi mu ko expliqué daal di ah man de lii moom a gën a convaincre ma bàyyi la ma jàppoon ñëw ci loolu

ma gis ni lii kat ñëpp a ngi lu ma naa ndax kii ni lépp lu mu gis ni moom lii mën naa jaxase moom day ñëw defar moom ab defarkat la képp ku ko xam te di ko topp day fekk ni dafa am ñoo xamee ne que ñoom politique rek la topp duñ topp duñ topp diine gi duñ topp nit maanaam nit ñi nekk ci biir réew mi ay ñoom sañ ay diine gi TV bu bu Oustaz Adi Niass réponse question yi fa am ay Ali Imran TV Oustaz Alioune Sall li ciy liggéey li mu am solo ay Bichri TV ay Xadima ñoom duñ topp studio yi moo tax na léeg-léeg lii da leen di rëcc moo tax ki ciy mën a wax dëgg-dëgg te mooy koo xam dafa bokk ci Pastef tey topp yi te defe naa nii ma waxee boobu ba léegi yaakaar naa yéen ñi bu ñu ko dégloo di ngeen ko xam léegi kon Assane loolu mu wax bi mu amee Pastef fii am na ñu ci ànd am na ñu ci àndul am na ñu ñu ni photo képp mu ne see juge nit il faut sëriñ bi gën a wax ay ay kàddu te Macky moom ku ne xam na ko ku mu jox danga wax ñun ñi ngi ci toile bi. gis nañ fi nervi religieux yi ni ñuy waxee ni ñuy attaqué léeg-léeg ay Guy Marius Sagna léeg-léeg ni ñuy attaqué Sonko pourquoi parce que dañoo lekk léegi nag ñooñu nag ñoo jël yenn ci publication yi daal koy jël daal yi gis ngeen seen sëriñ bi daal dem ni ruumanaat xam nga seetaan li naan seetaan waxul dëgg waaye yàq na fe daal di jël li ma jàpp ndax loolu mooy seen système jël nag wan ko waa kër sëñ Abdou Samad yi pour bëgg ñoom tam ñi kii xëy na xaw ma nag affaire nan la fa demee waaye xam naa lii moom seen liggéey la ndax li tax xam seen liggéey la bi ñu paree am na ci koo ne dafa ni xolal ñi doon saaga sëñ Abdou Samad léegi lan la ñuy wax waa koñ ba saaga nag duma ko duma ko weddi duma wax ni amul ndax ku ne xam na ni passif gi ñu nekk am na fi ñoo xam ay murid lañu am na fi ñoo xam ay tiijaan lañu am na fi ñoo xam doonuñ ci yooyu benn waaye dañuy xeex yooyu te passif lañ bokk léegi à chaque fois qu'une occasion se présente même s'ils n'ont pas de preuve il va en profiter même avec une photo ni nga xamé ne tay amna ñu nek yi ñi wax né dañuy défendre yoon wi te buñ dañuy jël photo diw mom ak Ousmane Sonko nan gis ngeen diw mi di saga serigne ci mok Ousmane Sonko ñoo bok tak diw ba mi def bi mi photo Ousmane Sonko ak bi mi bi mi bi mi def yoyu bokul kon photo bi avant la waye bi mu defé dañu ñew jël ji photo ba won indi ko pour pour yaq ni tamit daal jël photo bi man lima gis kima gis moy mu bind ni ci système manika serigne Abdou Samad mu jotté système bi xëy na nag am na ñeneen ñu ci wax leneen loolu wóor ma ndax man nag lu ma wóoru du ko wax moom waaw léegi nag nervi religieux yooyu nag ñoo jël photo yooyu capture d'écran yooyu noonu yóbbu ko ci kii yi nag bu fekkee tey xam nga si sëriñ bu ci waxee daal te nekkoo ku attentif xamuloo ni internet di doxee da juum ndax fan yii la ci ginnaaw El Malick gis nga fi diw moomu magum Facebook daal di xaw ma nañ lañ ko defee te loolu yomb la. daal di wàccee photo wu El def ko photo profil bind ci bind ko ni ñu ko bindee pare daal di bind daa di ne waaw Sonko dafa war a bàyyi sëriñ si parce que sëriñ si nangam nangam nangam pare capturé ko daal koy dugal ci groupe WhatsApp yi ñëpp naan voilà gis ngeen waa Pastef kii la kii léegi il a fallu que El Malick jël capture d'écran boobu dugal ko ci page am daal di bind ci c'est faux man bi ma gisee loolu xam nga man comme xam naa internet bi ma gisee nervi religieux boobu noonu di wax ni day défendre yoon wi bi mu ko dugalee man damaa daal di dem ci page yu El Malik xoolal sama bopp wàcc wàcc wàcc wàcc wàcc ba ci suuf gisuma fa dara ma xam ne lii lii lii ay fen la ngeen baal ma ci baat bi bi ma xamee ne ay fen la it ma toog jàpp sama ñaambur waaye El Malik ñëw weddi waat ko lii nag man noonu ma xamee internet taalibe bi nga xamee ne il est au fond fin fond peut-être ameewu noonu internet kooku mën naa gëm ne ah ñii dal ci sama kaw sëriñ te kooku mën nañ koo ñàkk lii waaye bu ñu defee live bi mu seetaan li dañuy ah kon nii la mbir mi demee bu ko defee moom kartam boobu ñoo dugg ci si moo tax li nervi religieux yi di liggéey pour yàq ñun tam danañ ko liggéey pour indil ko Ousmane Sonko moo waral ñu doxalee nii moo waral live bi kon dama jàpp ni nag loolu ba ko ñooñ defee ndax euh, nervi religieux yi nervi religieux yi dafa bëri de ñuy toog muy dox dafa bëri te nag kenn mënu ko fee kii moo tax léeg-léeg ñii dañuy am dëgg ci wet te lool yi boo xoolee sëriñ tubaa bi ne <laughs> dafa nit nit bay bu ñu xoolee bu ñu seytaane bi mu xoolee sama digganteeg euh, seytaane ba mënu ci dara day xool ku jëmul fenn mënu ko kaay ngay topp tuddoo kii ndax ñu am ci yaakaar membre guvernement bi ñu ci ëpp dañuy wax ne ay taalibe murid lañ waaye ñemeen sàcc milliard te moo ne de Serigne Touba waxuma lay milliard waaye dafa ne lu xajul ci bët xajul ci bàmmee la tasawudu chiwaan bi ñu ciy wax naqiir faqiir der bi lalu ci kaw tàndarma ji maanaam lu toll noonu sax duñ ko bàyyi te pourtant bis ne nga gis ku ni koo xam ne que sëriñ lañ koy woowee mu taxaw di fekk ñoo ñi sàcc milliards mën naa leen tëli bi sëriñ Tuubaa ngeen waaye billahi bu ñu àggee yowmal qiyaam wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa te itam est ce que dañ koy jàpp ni kooku taalibe Sëriñ Tuubaa la déedéet dañuy jël mbindum Sëriñ Tuubaa teg damay wax ni la ma ci Idrissa Seck ba mu ne murid ma ne balance kenn du jël balance di tek ci kaw marchandise da ngay tek balance bi da ngay tek balance bi jël marchandise bi tek ci kaw non la ñuy nit bo bëggee xam da nga murid lam déet da ngay indi beyti Serigne Touba yoy mourid moy ki nga xam ba abadan du sax lu dul ngeureumal suñu borom subhanahu wa taala nga jël ko tek ko nak nat ci Antoine diom xol ngeureumal kumuy muy nat ci man mi xol ngërëmal ku may sàkku ci diw non la naté kon ñu xam ni. ñun patriote ñi gën ci def attention bu baax ci photo boobu rawatina ci ay photo yépp sax photo wu kese sëñ bi loolu moom war nañoo dépassé foofu muy benn beneen bi ci des mooy Ousmane Sonko ak sëñ abdu Samad am na nu muy demee ci bu ñu sa yeggee ñoom ñaar ñooy lëkkaloo ndax kii ni mel ci daara ak kii ni mel ci daara te nag innal mu'minina waas wa aslihu na axawaykum te nag dëgg ñaar ñoo xamee ne yàlla la ñuy wut sëñ Abdoulaye ne woon na bu nu mënta ànd am na ko ci waxul dëgg te gën naa ni ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci loolu ci ci ngërëmal yàlla boobu la ñuy sàkku ndax Ousmane wax na ko sëñ Abdou Samad wax na ko ba tey kon loolu moo doonoon live bi pour nag euh, ñi nga xam war nañ Ousmane Sonko euh, am na ci ñu koy naqarlu waaw noonu la waaye dafa am lu ñuy wax réalité wu àddina bo gisé ñi bëgg nga jàng diiné jàng taarix comme ni ko sëñ Sambay doon waxé buñ la né yonent war nañ ko waxaat la ni la Insa war nañ ko ni la Muhammad war nañ ko yow bo ñëwaatee ci adina war nga xalaat yow ñu war la ndax suñu borom lu njëkk war ndax bi né nee bi mu dundee ruu yëpp teg daan du seen borom ñëpp ñi wa way bi ñëw fi ñan ñoo nangul yalla da nga leen wañi kon loolu moy moy réalité wu àdduna jarul di naqaru tay tam war biñ kay war moy wane ni usman Sonko gor la maanaam il faut loolu ñun tamit ñun tamit patriotes yi ñu ngi ko gën a bàyyi xel maanaam suñu boroom buy defar day mel day mel ne kuy yàq waaw waaye nag buñ cay yeggee incha allahu rabi taala peuple bi moom mature na ñoom xulootuñu xeexatuñu mooy wax Ousmane Sonko lii Ousmane Sonko laa dugg na fii génn fee waaw ñun faalewuñu kenn ba ñuy xeex 2012 ay ñi nga xam ne que nekk ñu fa mënuñu noo jox lu leçon dugg na fii génn fee yooyu yëpp Abba Mbaye gis nañ ko Joda gis nañ ko. خليفة سالك جسنا لين ميرسي الحمد لله هي على كل حال آه، وري مم جسنا كبوخ نق أمون سلنتي نقري نخ كدف لبخ سبب كدف لنن سبب دما في بنوتي سما باج نين نيو ني بن بوليتيسيان لو ورد واي ورنو با نوبي تيكيتي فا دار دوتول ام بناك بو بي جودا جودا وانا غيناو

wolof day wax ni lu la bett mën la waaw lu bett mën la waaye saa sooy jàng alxuraan waskur fil kitaab bi waskur fil kitaab yi nekk ci alxuraan di nga xam ni nag wax fa yàlla ku bëgg la ñuy jiitu woon bëggoon di nga la la leen daloon dana la dal waaw kon loolu moom mooy li ci nekk kon loolu moo doonoon live bi mu doon laay boo xamee ne que ñi mu ñi mu gën a soxal fi mu toll nii mooy taalibi Sëriñ Abdou Samad yi ndax buñ dégloo lii comprendre ko nii voix yooyu ni ko nervi religieux yi bëggee nangu ñaane ko Ousmane Sonko buñ dégloo laay bii danañ jël seen voix yooyu incha allahu rabi bokk ak ñun. maa ngi leen di ñaan lu ngeen ci xamul yéen taalibi Sëriñ Abdou Samad yi laaj leen ma ko ma wax leen ko ci sama page Moussa Kalaam wala ci sama page Moussa Diallo bu ngeen ci laaj ma wax leen ko incha allahu rabi waaw ah, te defe naa nii ma waxee ci TV xam ngeen kon ma ngi top sen page bi ñi ngi bàyyi xel suñu Abdou Samad bu baax te diko ñaanal ndax eh, ku ne gis na ni mu yéenee mur yëpp mur kenn am lako ko ku mu gis ni sax yaa ngi xaw sax mu wool la ñew naxtaan la ni la delu ci yi bu gisee fe sekk eh, ak muus mi mu ñew woko jox ko nangam lu mu gis lu baax lu lubah lu baax rek lay dox man mom la gis mu diko dox comme que moom la ñu xam ci moom nag wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa loolu la ñuy seede la ñuy seede ci moom di leen ñaanal te di ñaane li mu am yéene liggéeyal ko Serigne Touba yëpp ak ci xasida yi ak ci sàmm yoon wi ak ci nit ñi gën a góor góorlu ci ci ci ci jikko ju rafet yàlla na ci suñu borom dolli defal lu kawe njortam ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam ndax nag incha allah rabbi moo tax yéen yéen waa kër Serigne Abdou Samad yi xam leen ni Sonko ak Serigne Abdou danañ danañ danañ jokkoo ci. insha allahu rabbi taala yàlla na ko suñu borom def ci mbaaxam ak yéen mën ak tawfiixam xam naa live bi moom nervi la ko danañ ñi kii yàq na suñu dil bu waaye wallahi lu ngeen fi yàq lu ngeen fi bëgg rambaaj du dugg àjjana waaye tam duñ leen may dara insha allahu rabbi taala kon loolu moo doonoon live bi yàlla na suñu borom saxal ci dëgg ak njub ak siraatal mustaqiim te combat bi liñ ciy bëgg yëpp suñu borom defal na ci lu kay suñu njort euh, suñu way dawli martyr yi ñëpp yàlla suñu sunu borom yéegi leen ci àjjana yi gën a kawe ci mbaaxam ak yërmandem ak tawfiixam defal leen udxuluha bi salaamin aminina hmm. yàlla nañ ko suñu borom def nit ñi fi des it yàlla nañu yàlla dimbali bay lii ñu bëgg ñu am ko te buñ ko amee yàlla buñ ko fooyee yàlla nañ ci jaamu suñu borom subhaanahu wa taala tegu ci dëgg ak njub ak siraatal mustaqim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh